comme ni ngeen ko gisee euh, messe bi jeex na léegi nag euh, dégg ngeen euh, kaddu yi nga xam ne mu monseigneur Benjamin Ndiaye yëkkati na ko jëmale ko ndaw yi jëmale ko itam gouvernement bi muy opposant muy parti pouvoir jëmale ko askan bi yëpp ngir ñu gën a booloo ngir Sénégal mun a avancer loolu moo tax sax ministre bi nga xam ne moo yor mbirum jeunesse bi yëkkati ay kaddu rafetlu bu baax a baax discipline bi nga xam ne moom seetlu na ko ci. Euh, jàngu surtout la jeunesse euh, catholique mu nek lo xamné ne rafetlu ko rawatina aussi maire bi nga xamné ne dalal tay jeune catholique yi lolou momi itam rafetlu bu baax a baax euh comportement bi nga xamné jeune catholique yi yor nañ ko di ñaax aussi ñi ñi continuer silence lancer pour jeunesse comme niñ koy waxee jeunesse moy avenir du pays ci lolou nak dañuy taataan aussi cadeau euh, ñi nga xamné ne pèlerin yi. ndax lu ñu jàpp ci message muy message bu monseigneur bi ak message bu ministre de la jeunesse ak message bu ki nga xam ne mooy maire borom dëkk bi. message bi dafay nekk message boo xam ne ñun jeunes yi dañuy gën a jàpp gën a ñaax suñu bopp si lu mel nii quoi parce que avec amuñu fayam quoi parce que ku dégg homélie bi mu wax nga xam ne homélie bi homélie bu am solo la ñaax na jeunes yi ñu gën a engagé wu si église bi si bépp entité bi nga xam ne mu ngi si église bi parce que soo xoolee. parwas bo dem lol mo suñu problème engagement mo suñu problème comme nak lenn rek moy ñu mëna moy ñu mëna avancer lo moy fokk ñu engagé wu ci parwas yi ñu nekk ci entité yi ñu nekk ku ci nekk engagé wu ku ci nekk gis ci bopam moy waral suñu église bi dem kanam mu nekk gmj mu nekk Popenguine mu nekk Peulhinage leneen ak leneen. waaw damay rafetlu cadeau yi nga xamantene mom la évêque bi wax à l'endroit de la jeunesse euh parce que comme nous ñu ko toog nañ depuis 2019 jotu ñoo am JMJ tey ñu ñëw évêque bi ñaaxaat jeunes ci engagement mu nekk li nga xam te ne dafa am solo loolu war na loolu tax na ba muy ne e-, jeunes yi catholiques yi ñu des ci église bi ñu bañ ñu wëri feneen parce que nous avons tout dans l'église jarul ñuy dem di wëri feneen joxe na image joxe na exemple par rapport les icônes les images yi nga xam te ne jot na see bañ réere mbir